bismillah Abdoulaye Wade day ah dalal na Ousmane Sonko de ñëw tribune yéene kaay ne en tout cas ñoom ñaar ñoo ñëwee day Ousmane Sonko ak Abdoulaye Wade waaw daal dina ñuy waxtaanee nag kon tolluwaayu réew ma rawatina nag wàllum scandale yi la nga a day waaw da koo daal di jël daal eh ak Ousmane Sonko comportement wu opposition bi parce que opposition bi nag fi ni leen ni mu taxawee ni lee ah doy daa mel ni dañoo yàkkamti woon président lool Ousmane Sonko ci boppam day waaw moom sax samp na njiital Pastef ah nee na est-ce opposition bi li ñuy xeex dëgg la ñoom looloo jar a ñii kat dañoo mel ni dañoo wàcc seen yoon ñoom opposition bi lee xeexal Khalifa Sall mi lee ak Karim Wade ngir ñu delloo leen seen ak ak seenu daa mel ni opposition lé du kenn bëgg-bëggu Macky Sall kese la booy le quotidien yéene kaa ne gis nga wàllum pétrole boobee ah Aliou Sall lañ ca tudd maa la ko wax Abdoulaye Wade nag ginnaaw mu dalalee kon Alioune Tine day ah daal di ne Adama Gaye ak Ousmane Sonko moo yëngal gëzëm waaye Abdoulaye Wade ak Sonko day waaw ñoo bokk gis-gis ak xalaat ci lu jëm nag ci wàllum élection locale yi Sonko ak kay waaw nee nañu a taxawal ñu daal di koy respecté élection yi dañ koo war a amal benn fan yéene kaay ne waaye gis nga coowal Petro-Tim joojee ah rapport bu njëkk ba day nee ma préliminaire ba waaw ma nga ca taabalu procureur Serigne Bassirou Gueye aha maa la ko wax léegi kay nag parce que amatul lay amatul lay de déedéet Bassirou Gueye nag léegi kon am na sañ day may na ko mu jéebal dossier bi kon ab juge way laa mu daal koy classé sans suite ñemewu ko parce que na lu ko raw le quotidien yéene kay ne gis nga ñoom plainte day mbir mi mën naa ko seen kaw dee maar di daal ca boppam kon mën nañ leen a topp ne dañ leen a sosal ah waaw waaw yéene kaay ma jamal jàngi ne CRD day ñoom Abdoul Mbaye ñooñee ak Mamadou Lamine Diallo waaw dañoo porté plainte Franck Timis laa la wax ak Aliou Sall mi ak Wang askan wi la faux et usage de tamit wàllum complice la ñuy toppee Alioune Sall lee sur saane en tout cas président Macky Sall ay safara yu bëree bëree ko séq temps yi na de dama ne leen ci suba ah, ay ndaw yoo xam ne ko nañoo bokk ak Macky Sall ca Fatick gale quartier pël ga waaw xale daal ñoo xëy yor seeni pono démb ba buntu kër laa lay wax nii xool arrêt Macky ah taal ko fa jaxal ko fa ba maar de taale laa la wax ca biir koñ ba Babou Oumar Dia mi nga taxawaluwaat laa la wax rakam ji la di Alioune Sall ñëw fii ci Fatick daal di ñuy salon bi ginnaaw ba ñu naanee ataay ba pare Alioune Sall recevoir nañu ñetti yoon nañu may leen ma ba ma dellu Ndakaaru Njaay jël job gëlee danañ wutal liggéey ba fii furaas daal di xideen laa wax ay diggéey neen li ñu Alioune Sall waxoon defuñ ci dara ba dara booloo jeex laa wax zéro emploi bourse étrangère zéro financement ngir ngir suñu yaay yi nga xam lu ne daj nañ ko ngir Macky Sall ci koñ bi la ñuy sàkku tamit ci kilifa yi day mooy a Sall bu dee seen ko ñu lëndëm yeneen ko ñi bu yeboo ñu dem toog Moustapha Diakhaté day en tout cas ak dëggu ubil source a nañu Moustapha Diakhaté waaw ma ngay sàkku na ngir Mari Sagna ah, ñu libéré ko mu ñibbi Moustapha Diakhaté ne lu ko mooy day ah, ga ñu amoon ci wàllum si ci teg loxo bi nga xam ne ko tegoon nañ ko loxo Imam Ndaw Ousseynou Diop Sayer Kébé ci loi antiterroriste gi lée ñu dalaat de ci kii Mari Sagna ma jàmbal daan jël xalim am ne gis nga waxtu wee jot laa wax maître Moussa Sarr ci Sud Quotidien waaw ne gis nga ndoon na ko Ousmane Tanor Dieng gi ah wallaay mën naa taal ëttu politique bi lay tremblement de terre séisme mardi taal maa la ko wax Barthélémy Dias ci laas waaw ne gis nga Macky Sall mi lee dafa ralul PS dara ànd bi PS ci perte laa la wax xoolal ma Ousmane Tanor jiite bànqaas di ab institution feebar moo jëndal boppam garabam yépp ba ci frais médicaux yi laa la wax ay waay ji lay Tanor a nag la wax Sénat euh. parce que Tanor Dieng moo waroon nekk deuxième personnalité de l'État jiite Sénat bi Macky Sall bi muy dindi Sénat bi Tanor lu ne def na ko ngir jokkoo ak moom téléphone Macky Sall bañ ne du ko jël man baax li mu jaas maa ànd ak homme d'affaires Harouna ñu dem ba kër Macky Sall ngir décanter situation bi ay waay ca joo xam ne nag suñu politiciens yaa nga ca day waaw Dakar Times nee na en waa kaw gi day monde rural sonn nañu ne kaay ne procureur taal ko dee vox populi ne drogue ba kay lañ ca taal boo ko xaymaa toll na ci juróom-ñett fukki milliards la ilaha illallah dem naa ca làmb kaay ne ëma seen day waaw dañ ko door mu ne mbàpp daanu na ah maa la ko wax laast cey waay roi des arènes ba day yegg na teer dama ne la daanu na roi ba jugee na Pikine léegi ma nga Parcelles Assainies cey xarañ Ababacar Ababacar Mbaye Mbaye Ababacar Mbaye Modou Xarañ Lo le quotidien yéene kaay ne moo ne bis su ñaar fukk ak juróom-ñeenti day ci weeru juillet 2018 waaw ca la Eumeu Sène nekkoon roi le 29 juillet 2019 jour pour jour la la ñàkk nekkoon roi ba ilaha illallah Eumeu Sène de moo doon wax ne dof du wér ah l'observateur ne Modou Lo day faj na dof boog sobli ne en tout cas dóor bi nga xam ne Modou Lo dóor na ko Eumeu Sène day waaw mënoon maa la wax lii terminé soox ne Modou Lo kay daa humilier Eumeu Sène démb la wax da koo toroxal ba ne toot sur sa année Eumeu yeewul boog Mamadou Diallo day boxeur la ci l'observateur waaw nee na Eumeu kay ñetti weeru yàlla yoo xam ne kon da war a noppalu looloo ko war le Modou day toogu fa sax di xaar ñu solal ko mbaxanaa ma laa la wax guddi guddi parcelle rek <laughs> en tout cas Modou xarañ loo day moo ko digoon waa Parcelles Assainies def na ko waaye yéen waa Parcelles tamit ginnaaw ba leen joxee nag roi bi ba pare bu leen fàtte mukk ne suul gaz su ko teree xeeñ boo pare mën a la tëjal n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Yes la première web TV du Sénégal